dajeena dëddu ko jot na ngir Bamba dem na asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki lislaam yi ñoo ngi leen di nuyu gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi di sant nag suñuy waajur waaye di sant Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di sant bu baax it nag Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim sunu sang ba yàlla na fayal nu ko lu tax loolu tey noo ngi toog fii ci Màkka Brage yi ceet ban xanaa atub Serigne Jili Mbàkke moom Serigne Mbàkke Madina moom Cheikh Moustapha al Karim moom Serigne Touba Xaadimu Rasuul moo ànd kan doomam ja xaritam ba soppeem bëgg ko ko wóolu loolu mu bëgg ko Serigne Xaadim Mbàkke ibnu Serigne Mbacke soxna loo ibnu Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ibnu Cheikh Moustapha al Karim moom Serigne Touba Xaadimu Rasuul bokki julli yi bokki taalibe yi waaye tooyaay bi tey bii nag kan moo ko lan moo ko waral mooy jëf ju joo xam ne si Cheikh Moustapha moo ñu ko liggéeyaloon ci Serigne Bamba mooy lan bés bi xamee ni nag ci la Serigne Touba liggéey ci njaareem Cheikh Moustapha. jëlee ko jaareem boole kook rakam ju baaxee Cheikh Mouhamadul Bachiru mu andil ko ko Touba fa tabarakallah mu liggéey liggéey bu rëy bu rafet boobee. tax nag bu jubee ñu am ndigal loo xam ne si dafay tukkee Serigne Mountakha Mbacké ibnu Serigne Bachiru xalifatu général kul murid. suñu bi ñi ngeen di gis nag ko gisee am lu ko waral mooy téeméer at yi nga xam ne nii moom la ñuy fàttaliku suñu jàmbaar yi suñu yaakaar tey ëllëg muy Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul loolu nag ñu jàpp ko ci weeru hijriya ñu weeru islam dañu am ci wàccaay boo xam ne nii dañ koy lay bis bi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku bis boobu waa Louga nag am ci ab cër bu mag a mag ndax ku wax Cheikh Mbaba Xaadimu Rasuul wax Cheikh Mawlana Moustapha wax Cheikh Mawlana Bara Mbacké ah, wax yàlla ñëw seen cosaan ci Louga kon ñoom ñaar ñaari bi ñaari kilifa yooyu nga xam ni ñoo ñëw seq Daaru Xuddoos ak guy ak ñëpp ñu nga xam ne lim nañ leen ñu nekk ci diwaanu njàmbur ba Ndar ba Kébémer ba Linguère ñun ñooy taxaw bis bi ñuy waaj ñu ngi koy taxaw incha allah le altine fii ci kër Mouhamad jàkkaarloo euh, pare bàyyi ji mbay mi ngi mi ngi doon altine le 15 juillet ñu ngi koy defee kër Mouhamad gannaaw bu da maanaam à partir de 3 heures ñu ñu ñuy woo le di woo le maire les maires sax laay wax les maires yi nga xam ne ñoo nekk ci goxu Louga. li ko wër goxu ndar ak li di woo autorité yi nekk yi nekk ci dëkk bi yëpp ñoo ngi leen di convier ci bis boobu nga xam ni bis bu rëy la kon sëñ Karim dafa wax ne képp koo xam ne yaa nga wooyee ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu muy kilifa diine nga muy kilifa aada nga muy ab taalibe nga muy ab wëllënge nga muy ab xareen nga muy ab soppe nga bis boobu nag ñëpp bokk waajal incha allah altine bii ñu jëm ci kër Mohamed nee na nag rawatina njabootu Serigne Bara gii xam ne dañoo bokk moom Serigne Mame Lamine Bara Mbacké ci ndigalu ki nga xam ne moo fi Serigne Moustapha di xalifa bi ñu koy soññee ndax gis ngeen ne màggal kat ren ji am na changement ndax rakkam Serigne Cheikh Mbacké moom Cheikh Abdou Aziz xam ne mu ñu jàpp ci bis bi jiitu bis bi da cee bokk yaatal na ko lool kon Cheikh bi Karim kat nee na fii ci njàmbur loolu rek moo tax kàddoom ji waaye kàddu gi muy kàddu sëñ Moustapha rek kàddu gi muy kàddu sëriñ Baara muy kàddu jullit yëpp mboolem daayira yoo xam daayira xam ne nii ci biir Louga ñu ngi seet ñu ngi ñu ngi séentu daayira yëpp ak seen i digisement ak seen mbooloo ñu ñëw teew daayira bu nekk nga xam ni am na ak ràññee am nañ ak ràññee ci yow te ñëpp ñu ngi ñi ngi leen ciy séentu ñu xam ne woote bi woote sëñ Tuubaa la ku ci wucci rek sëñ Muntaxa nga wuy si lu ci waaye defit si mun taxaa nga nga ko defal yaakaar naa waxtaan wi tànn di ko ci def jullit bu nekk mën na cee jariñu mooy mooy benn jullit ñëpp mu waxdatul muslimina mooy benn tam bi nga xam ni sa sëñ Basiru Mbàkke moom sëñ Bas Pee moom moo koy def kon moom sëñ Seex Coro moom moo koy def mooy def benn waxtaan wi beneen bi ci des mooy kasbul xalaal di fàggulu leew loolu tamit yaakaar naa jullit ñëpp jullit ñëpp jullit bu ne mën na cee jariñoo di woo nag sama mbokk jigéen ñi laay woo maa ngi wax sama mbokk jigéen ñëpp fu a nekk rek nag dégg sama kàddu maa ngi di woo mboolem daayira yi di jiital daayira Touba ci nga xam ne moo ëmb mboolem sëñ moo moo ëmb liggéey sëñ Touba bi waa Touba ci kanam ñu ngi leen woo Louga yëpp ak li wër Louga di woo waa daayira maam jaare bu sëy Louga yi wër Louga lépp nag boobu ñu kenn ndax lépp lu ñu woote rek jigéen moom kenn mënu ko jël daayira boobu mën a fekk rek jigéen ñi ngay fekk ñu ëpp ñu doxee jigéen ñi ba ñu ngi woo suñu mbokki jigéen ñëpp ñëpp bawuñu kenn waaye walaay yéen ko bokkal ñun waaye xam Aba Moustapha ko bokk waa suñu suñu Aliou yëpp ñoo ko bokk ñu ngi woo jigéen ñëpp ñu kenn képp ku dikk suñu kàddu daal ñu ngi lay woo te la woo it nag ñu ngi ñëw ca teel. woote bi ñu woote. ci woote bi ñu woote. tax tax buntu kër Cheikh Moustapha yëpp daje fi. tax buntu kër Cheikh Mouhamadou Moustapha yëpp daje fii moom. Mm. gën koo yaatal si jullit yëpp sax. nee na gën koo yaatal sax si jullit yëpp sax. ndax bis bi ñuy dëgmal. ndax bis ñu dëgmal. dañ koy lay taay lay taay eh, màggalu daal bi ñu jëm mu ngi si lu mu koy lay taayale bis bii ñu jëm muy ay si mu xaram. woon nag dayo bii mu am tey daa amul woon nag dayo bii mu am tey jii ndax dafa waxoon ne fu waay nekk rek ndax dafa waxoon rek fu waay nekk rek na ko fa màggale na nga ko fa màggale màggal googu nag ute naag màggal gii màggal googa nag ute naag màggal gii ñu tuddee Ishrina Muharram wii ñu tuddee Ishrina Muharram te moom laa gën a jàpp moom te nee na moom la gën a jàpp moom ndax du màggalu Daaru Xudóos ndax du màggalu Daaru Xudóos màggalu jullit yëpp la màggalu jullit yëpp la euh, yool bi sëñ bi mag bi euh, digle woon yool bi ci sëñ bu mag bi digle woon ba wax ni ku si fanaan boo wax ne ku ci fanaan. sa yaram araam na safara. sa yaram araam na safara. loolu la jullit yëpp. loolu la Cheikh Mouhamadou Moustapha yéene jullit yëpp. ba tax mu ne. ba tax mu ne. koo xam ni amoo lu dul ñaari mbubb sax. koo xam ni amoo sax lu dul ñaari mbubb. sa sa amoo amoo paas. te na nga jaay menn ma. na nga jaay menn ma. paase ko ñëw. paase ko ñëw. ku am ku dend ak sa sa moromu moo xam ni naka yow. moo xam ne naka yow. dafa amul paas. dafa amul paas. te yow nga tane ko. te yow nga tane ko. nga nga dimbali ko mu mu ñëw. nga dimbali ko yow mu ñëw. ndax moom ruu yi rek la soxla. ndax nee yii moom la soxla. ruu yi la soxla ruu yi la te te loolee eh, taalib yëpp maanaam jullit yëpp la ko yéene. te loolu maanaam jullit yëpp la ko yéene. moo tax muy woote ci bis bi. ndax muy woote ci bis bi. ba sëñ sëñ sëñ Muntaxa moom it am ci taxawaay na Cheikh Mor Muntaxa yàlla a yàgg a wér am ci taxawaay bu mat sëkk. fedd li ko ren jii. fedd li ni lépp lu fi xew ci buntu wax ne lépp lu fi xew ci biir buntu Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké. moo ci sunu kilifa. moom moo ci sunu kilifa. bu gënee yaatu nag. bu gënee yaatu nag. ba làmb murid yëpp mooy làmb murid yëpp. Euh, cër bi nga koy delloo si si Mouhamadou. cër bi nga koy delloo ci sëñ Mouhamadou. ndax moo moo fi sëñ sëñ Touba. ndax moo fi sëñ Touba. wasalaamaaleykum wasalaamaaleykum. jërëjëf jërëjëf. defar sa jàkka tey fonki rakka tey aji Makka